mbir mi doy na waar ba egg ci lool benn soxna boo xam ne ay atam tolloon téeméer ak fukk ak juróom-benn gannaaw nag ba mu faatoo ñu indi ko ci morgue bi nga xam ne moo nekkee ci jumaay Tuubaa ji foofee nag ay jafe-jafe tàmbalee am moom soxna soosee nag ñenn ci ay njabootam seetlu na ne ne dañoo cuqati sikkim ba dagg yenn ci ay baaraamam ak yeneen cër yoo xam ne jotees na ko yóbbu bu ñu sukkandikoo ba léegi rek kenn ci soxna yi nga xam ne rek ñoo ko doon toppatoo laata muy génn àdduna moom xam na ne amul benn gaañu gaañu boo xam ne amoon na ko wala sax lu koy nuuru gan gannaaw nag ba nu ko yóbboo ci bërëb bi nga xam ne foofee la nu ko doon sànge kenn ci njaboot yi du ko góor ba mu ñëwee ne da koy gis-gis bu mujj maanaam ne da koy ziyaare ci la seetloo ne am na ci yenn këri soxna si nga xam ne ay atam toll na ci téeméer ak fukk juróom-benn yoo xam ne nag jot nañu koo dagg loolu nag nekk mbir mu doy moo xam ne nag jaaxal na leen bi nga xam ne rek moom moo jiite morgue bi nga xam ne moo nekkee foofee ci jumaay Tuubaa yi moom kàddu yi nga xam ne rek yëkkati na ko moom kay dafay xam ne ne mbir mii kay du lu bees al soxna si nangu na ne seetlu nañ ne am na ay gaañu gaañu yoo xam ne nekk na ci yaram bi waaye nag la mu ci wax moo di mbir moomee ba mu ko seetloo jàpp na ne du lu bee loole nag wuuteeg lool yenn ci kàddu yi soxna yi nga xam ne rek ñoo doon sang soxna soosee nga xam ne faatu na ba léegi seeni kàddu nag kenn ci soxna yi di xamle ne gannaaw nag ak seetlu goo xam ne rek jotis nañ koo def ca la ñu am ak jaaxle daal di woo ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di kilifa yi mu nekk nag lu doy waar ba léegi rek ci ay kàddoom di xam ne nag moo mala mbir du ne guleet mu fay am mu nekk nag lu doy waar loo xam ne rek mi ngi xewee ci morgue bi nga xam ne rek moom moo nekkee ci Touba gannaaw nag way takk dere ba ñu fa ñëwee ñuy xaarani moo mala mbir fan lay mujjee